Euh, de la mère de l'ancienne euh, première dame du Sénégal di ki nga xam nekk moo di Marième Faye Sall nag euh, kër gi nga xam itam moo daal situé foofu si doonu li nga xam nekk moo Corniche mom nak len daal di cambriolé il y a quelques semaines exactement moy yaayu ki nga xam nekk moo di Marième Faye Sall këram gi nga xam ne itam moo nekk foofu si que Corniche len daal di tidji amul fa ab sàcc bu doy war au moment euh, des faits qui n'a jamais nekk au di yaayu Marième Faye Sall mi ngi woon foofu si daanu à màkkatal le camilleur euh, s'est euh, introduit dans la chambre pour s'emparer de biens notamment des bijoux manaboum de mu duggee si li nga xam yaayu Marième fay Sall euh, fekk na fa nag li nga xam nekk moo ay bagage am warati nak or yi et euh, tant d'autres et tant d'autres ñu daal koy jël euh, yobbu en tout cas li nga xam nekk moo di ki nga cambriolé nag loolu la daal di fekk si néegam exactement yaayu Marième fay Sall mi ngi alerté alors dans sens ci këram gi nga xam ne itam moo tax situé fof si diwaanu li nga xam nekk moo di il y a de cela quelques semaines peut-être dafa porter plainte ah, yëf yi nag sénégalais dañoo jël lu ñu moom rek

moom su ma nekk te am na kër bu bu nekk. mais loolu la parce que ñoom ñoo nekkoon ci nguur moo tax ñu tabax ay kër ci Cosmos. ay baadoo lay tekki fu ne la ñuy tabax. man këram fii foire la nekkoon fii nii foire. kër yaay tabax nañu fépp. ba mu ba ci kër ma wax la ko ñooñu fépp la ñuy tabax ci Sénégal. mais corniche avant. <laughs> tabax corniche yóbbu fa sa yaay sa famille. dara dàqu ko tabax. kañ la ñuy sàcc saax sàcc xaalis Sénégal parce que yéen nekkoon ci nguur gi tabax fu ne. yaa y a cinq ans de wala vingt ans de cela musoo xalaat sa tabax tabax corniche. parce que parce que musoo xalaat sa milliards yooyu. Hmm, kon neen tabax nag. ngeen ñëw am xaalis si diggante bi sàcc xaalis Sénégal ba ngeen doyal ngeen dem tabax sa. ah mais xale yi fekk leen fa. cambriolé la jël lañu moom. yëf yi jubul kaw.

parce que ah, xam nañu état fu ñu jëm ak ñoom ah, ci rapport yi alors <laughs> waaye nañu nañu may ñi ñuy jàmm waaye nañu may ñi ñuy jàmm demain 10h30 di une information, il y information une actualité dans quelques instants Midi Info ba suivre nos programme